salaamaaleykum internet yi nuyu nañ leen jaar leen ñu ñëw ak yéen ci xibaaru tàggat yere yi laataa ñuy ñëw ci faram-fàcce gi dañuy ñaan képp kuy gan ci page bi te abonné gu ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bës kolos bi ndax vidéo bu ñu dugal rek nga bokk ca ña koy njëkk a gis ñu door xibaar yi ak Ismaïla Sarr Ismaïla Sarr nag jamono yi mbiram ma ngay yëngatu ca mercato ba parce que jamono yee passé yëpp club yi ka soxla woon dañoo bàyyi woon. Euh, dossier wam mais jamono yi club yi ñu ngi yëngatuwaat ci mbiri Ismaïla Sarr ndaxte jamono yi club ba mu nekk di Watford dafa wàcc deuxième division bu Angleterre rek Ismaïla Sarr la mu bëgg mooy dem ci club boo xamante ne daa nekk ci première division doxal fa bu ñu sukkandikoo ci xibaaru Foot Mercato club bii di si nekk ci première division bu Angleterre ñi ngi bàyyi xel doomu Sénégal bii di Ismaïla Sarr wante waa Leeds ku wuutu ki nga xamante ne mooy Raphinha dafa jóge dem fële ci Barça loolu lañ bëgg moo tax jamono ñu ciblé ñetti attaquant yoo xamante ne kenn dina ci remplacer doomu Brésil boobu di Rafinha kañu siibale nag Ismaïla Sarr ca la bokk ki nga xamante ne mooy Elan Raoud tamit ca la bokk ki nga xamante ne tamit mooy Martin Terrier nekk fële ci Stade Rennais ca bokk wante Kody tamit nekk ca PSV Eindhoven ca bokk wante doomu Sénégal bi tamit di Ismaïla Sarr Foot Mercato mi ngi xamle Lils mi ngi koy bàyyi xel ba jamono yi mi ngi dox ci ay. bu ñu jógee ci euh, Ismaïla Sarr dañuy dem ci Abdou Diallo jamono yi nag ñaari club yu nekk fële ci Angleterre muy West ak Fulham ña ngi koy bàyyi xel ba jamono yi lu ñu bëgg mooy jënd doomu Sénégal bi mu ñëw si seen club ba doxal fa wante club bii di Milan AC nekk fële ci Italie jamono yi tamit bëgg na doomu Sénégal bi wante xibaar boobu journaliste bii di Ignazio moo ko xamle ba léegi Ignazio ma ngay xamle day. ñaari club anglais yi di Fulham ak West Ham la ñu bëgg mooy jënd doomu Sénégal bi contrairement ak AC Milan nga xamante ne dafa bëgg abbu doomu Sénégal bi mu ñëw ci seen club ba doxal fa xibaar boobu nag Ignacio moo ko xam ne ñu jeexale xibaar yi ak Monaco bu Krépin Diatta ak Sofiane Diop tey dañ doon jàmmarloo PSV Eindhoven ca tour préliminaire Ligue des Champions wante ci bile jongante ndam demul ndam dikkul. kenn ku ne dafa dugal sa morom benn bi wante day bi la match ca Monaco la doon amale kon Monaco moom mooy dem ci match retour bi fële ci Pays-Bas ci PSV Eindhoven bi la match nag suñu gaynde bi di Krépin Diatta joué na ci 23 minutes kon joué premier match officiel am gannaaw bi mu jugee ci blessure bu méttee métti. kon ñu ñaanal Krépin mu ñëwaat ca forme ba nga xamante ne mi ngi ca woon ndax bu ñëwee ci équipe nationale bu Sénégal daal di mën a doxal kon mbokk yi yëf yi la ndar képp la di wax. ba beneen yoon ci suñu yeneen i vidéo ci kàttanu yàlla